Ibrahima ay ca mbokk yi dañuy dem rek directement ci li gën a fës ci yéenekaay yi ñu daal di koy doore ak journal l'évidence bi nga xam ne dafa xëy rek fësal ay audit ah, jëmale ko ca directeur kudd bi nga xam ne rek moom moo fa wuutu kii di Maguette Sène moom nag ma ngay ah, daal di signaler ay audit ak façon ba nga xamante ne ni moom la ñu yore woon loolu di université Cheikh Anta Diop ma ngay ŋàññ bu baax a baax ña nga xam ne ñoo fa nekkoon laata Maguette seen di ñëw waral nag muy xam ne ni ah, dinañu wa def ay audit jëmale ko ci direction boobee di direction bu kuddu ci biir journalub euh, l'évidence euh, xëtu yaato yaatu lañ ca def ubbil rek ngir nga bën a mën a xam ana lan moo xew bu baax a baax euh, ci boobule mbir beneenu mbir bu journal bi daal di fësal daal dinañu rek gis li nga xam ne moo jëm ci ministère bi nga xam ne ministre Abdourahmane Sarr ak li nga xam ne rek moo jëm ci wàllum setal set seetlu ak setal noonu la ko tuddee doit être de mise dans la lutte quotidienne et personne dans la lutte quotidienne et permanente loolu nag euh, ba tey ci journalu l'évidence daal dinañu itam àddu euh, jëmale ci li nga xam ne rek moom mooy euh, tàggat yaram journal bi daal dina ca fësal benn ci doomu sénégalais yi nga xam ne rek ñoo nekk fële ca bitim réew di wuyoo ci turu Thierno Ciss mi nga xam ni journal bi daal dinay fësal bu baax a baax ay performance am gannaaw fa nga xam ne rek fa lay évoluer muy championnat bu Émirats ca club bi di Al Mouj FC moom nag journal bi daal dina dikk ci bu baax a baax ci ay performance am yemi dal di amal foofee eh, ca boobule eh, championnat ñu dem direct eh, ñu dem ci li nga xam ne rek mu jëm ci mu l'observateur la ñuy daal di ubbi l'observateur la ñuy daal di ubbi moom nag ma nga daal di wax jëmale ci le Sénégal en danger mu mel ni Mansour fay la ca daal di fësal ab nataalam gannaaw kàddu yamu yëkkati moom Mansour fay rek di xamle ni Ah, fi mu toll nii nag réewum Sénégal ci danger bu metti la nekk ndax xamuñu anakan mooy njiital réew bu euh, Sénégal gannaaw itam euh, lu jëm ci 100 jours yi nga xam ne gouvernement bi amal nañ ko fi moom nag dal dina ca àddu jëmale tey xam ne ni ay catastrophe képp dong lañ ca dal di fësal beneenub journal euh, boo ñu ko mënee indil ñu daal di ci tamit àddu jëmale muy la turbine bi nga xam ni Diomaye ak Sonko la daal di fësal jëmale ko ci inondation yi nga xam ne def na ay dégâts yu bëree bëri niki démb ci biir réew réewum Sénégal journalu La Tribune daal dina ci àddu bu baax a baax ñu dem ma jëli enquête yéenekaay bi nga xam ne rek moom dafa daal di dikk ci li nga xam ne moo ñeel élection législative ya amoon fële ca France journal bi daal di ci fësal ñetti nataal yoo xam ne rek ah, fi mu toll nii jàpp na ne ñoom ñoo jiitu ca lu ni mel gannaaw loolu c'est le feu artistique la ko daal di dippe mu mel ni nag ñi nga xam ne ñoom ñooy le nouveau front populaire ñoom ñoo jiitu ca boobule élection waaye itam Mélenchon yëkkati na ay du ci biir journalu enquête tey xam ne ni kii di Macron na daal di rek nangu défaite ba nga xam ne am na ko Walf Quotidien la ñuy daal di dem ah, di àddu jëmale ci ki nga xam ne rek moom mooy Euh, Ahmed professeur Ahmed Ndiaye mi nga xam ne rek daal di nay xam ne Ousmane Sonko na wax rek euh, na xamal na daal di adapté wu ci li nga xam ne moom mooy premier ministre daal di génne xelu sénégalais yi ci lu jëm ci wàllum président Ousmane Sonko mooy ay kàddoom moom Ahmed Ndiaye ci biir Walf Quotidien ñu daal di dem ci beneen journal euh, ba le quotidien le quotidien ñu ubbi ko moom itam daal dina àddu jëmale ko ci lu jëm ci wàllum front bi nga xam ne rek moo di fédération bi nga xam ne bu bees la rek jëm ci Mali Burkina ba ci Niger ñoom nag daal di nañu daal di ber seen yoonu bopp ak ah, jëm ci li nga xam ne gannaaw ba ñu génnee ci CEDEAO loolu nag journal Le Quotidien daal na ci àddu itam bu baax a baax ñu jëli beneen journal muy Sud Quotidien moom nag nagaalu président de la république Bassirou Diomaye fay la daal di fësal 65e euh, sommet ordinaire bañ doon amal ca Abuja mu yëkkati fay kàddu tey xam ne ne war nañoo daal di gën a jëmmalaat taxawaay ngir rek dëkk yi nga xam ne génn nañ ci CEDEAO ñu mën a fexe nu ñu def ba delloo siwaat leen ci ñu daal di bi itam laas yéene moom nag dafa daal di des ba tey ci li nga xam ne rek moo jëm euh, ca la xewoon euh, fële ca ca gu Medina mu mel ni nag ña nga xam ne daal yoon tegoon na leen ci loxo ñenn ci ñoom génn nañ rek di xamle eh, la nga xam ne dund nañ ko ca biir kaso ya ñu dem eh, ci beneen journal direct news muy eh, programme bi nga xam ne rek daal dina koy fësal programme d'assainissement de soixante milliards Ousmane Sonko a-t-il été mal briefé loolu nag moom la direct news daal di fësal. ñu da àddu itam ci beneenub journal muy bés bi le jour première pluie première bruit nda ko daal di xamle gannaaw euh, taw bi am niki démb rek inondation yañ ca nemmeeku jëmale ko ca Kaolack ba ci Touba ak fii ci Ndakaaru Njaay journalu bés bi le jour euh, def na ci xët wu yaatoo yaatu le soleil national moom dafa daal di àddu directement jëmale eh, ci li nga xam ne rek moom mooy eh, seetal eh, sunu réew ba nga xam ne doon nañ ko amal fële ca Saint-Louis njiital réew mi la ca journal bi daal di fësal ak kàddu yam ci yëkkati jëmale ko ci ay audit ak yéen yu ni mel. ñu dem ci beneen journal tàggat yaram ak record bi nga xam ne rek dafa daal di dikk ba tey ci euro bi nga xamante ni ña ca war a laale daal journal bi daal na cey dikk bu baax a baax euro deux mille vingt 2024 Espagne France pays ba Angleterre ñu dem jëli itam stade yéene kaay moom nag nataalub Euh, Augustin Senghor la daal di fësal moom nag ak soupçon yi nga xam ne rek amee nañ ko jëmale ko ci euh, jëmmam jile loolu nag journalub Stades daf na ci ab xët bu yaatoo yaatu ak nataalub euh, kii di Mbappé itam journal bi daal na koy fësal ñu ndar kepp xibaar yi ak suñu làmb mi dikk ci la nga xam ne rek moo ñeel signature de contrat Balla gay 2 ak tafaatin mu mel ni ñaari mbër yi Ramatulaay daanaka sax tuuti ñu xeex ci seen biir bu Ibrahima Faye c'était la euh, revue des titres euh, ñu ci àndal nag chaque suba euh, comme à chaque fois ak Ibrahima Faye